la luwolum ma la nga jayi kato ala la kuwa ka wala sembendiya ala ko ni moye ñiñaayi ku kendo ke ya tentu ya jayi albe be yalla be teya fojanne ñun ñepp wax nañ baaxam fi ay islam o fasa uh, farle na islam ay ay a ya ta uh, eh, amna yermande ci nit ñi e ku bete jamal ya fojan yu baax yu baax yu bari wax nañ ko ci mom mine ben tolna te kon ñun wa rew mi lan mo nekk fa digante lom ka ala jayi ala mi ya din tolla njel ben nga ñuko sante diko gërem di sante yalla mi ñu xamne mo ñu jox ni wo kotejen seduwaye gannaaw loolu su ci loolu jógee ñu koo ñaanal fo ala saa so simanin jaati kendan yàlla may ko wérgu yaram ak fan fanu gudda ak itam mujj gu rafet ay nganiyo min soto banko e kene gu rafet gi ama réewi a fo nganiyo ala saa pour su ko defee mébét googu yàlla mo yàllon ka sikentol be nafa loo xam ne ñun ñëpp dinañu jëriñ yàllon doolu yaa fo jàng mu ne am na ñu ko waxoon fii bari atuma la tan tol dool kañinale waaye doom dañ dee fàtte ya fole ko mune waxoon nañ ne e kabringa adingola birthday sita aka ay ay akalta kay nga ñoom ministre gambia kera birthday doomam bi dafa teewoon alquran wax ene bi xam ne amal ko xale réew mi hakkilo ba kan 1994 waaye maa ngi fàttale ko 1994 kabri wootu moo la mu be commanda yàlla basi depuis ñoom bam moom bam nekkee commanda yàlla basi ay alquran o muta mu tii alquran il karim ako billahi mu ne billahi wallahi wallahi tallahi tallahi ni nga jam fa jamfa jamfa yalla jamfa ko wotani atata ko président jamme barakata kon su fekkee ne président jamme barke tolu beeti kon du ñun ñëpp naata mantara tooñaa kan su fekkee nekku doon ci kaw dëgg no ala yan kan ni ko noon yàlla fagagal baraɓe tooñale kan waaye ci kaw dëgg ala ya lon ko aba sondo mooto yàlla xam ne mu ngi ci xol aba baraka wala te noonu la koo doxalee wala na hanen kaɓaɓe maro looloo tax bente andu nin añum fon nin ke te ndaw mi min na président di suñ président na boos di boosam ñim ɓe mbulle folode mu ne mu ngi ci suñ loxo de kaatun ka ŋaniyo sénéal mu ne gis nañ ne xolam dafa set ay ŋaniyo mi soto banko mu ne xol bu set ak kammala momoya jawya ak itam ku ko soxla fo naata itata koom xanaa loolu mu delloo la gannaaw min kela lima ñaan wolom ñinti ko moodi ne e eh, min ye lon koy ɓe kooma ñi ci gannaaw du kare mu ne lel nin ala ye kayro diira yalla sulame, nin ala ye mo kendo diira sulami nit ku baax aa ko ma toppa ko wala nan ka fu mole ko mu ne muy wax man dema fonka wa banjul mom ate banjul ko fonka aye kanu te wa banjul adum banjul yalla dina continuer ala be continuer ne ka yen eh, ka taral parce que katu ngeen am tawhid ale tawhid ku yalla far rek ale momo tan ku yalla fal rek ale momo tan ale tara ko loolu gis naa ko depuis depuis ma fee janga depuis ma fi liggéey ay wojele biraɓe karola biraɓe lol tax na man dama leen gën a fonk andu watina ate almutale bakke woto minu bal ko leen a yegal ne ba folale ko tamit na ñoo ya ay fana ina nga bi nga xamne mu ngi bu ñami mba ko ndax ñoom ñu bokk fana sedd kafu ji wante yalla na yalla musal bari alama lay tan pour ñu melni pour mol minu bokko nga xamne bi nuur annabi lay nuur di dem kabri annabi lay nuur ana la kulungo do mam ne ko de mu ne do mam ñewal do dunka hande ay papa man garab di dal alhamdullilah yalla na yalla musal si façon yalla alama lay tan ko si yàlla na yàlla amin ya rabbi alama ala en tan kaw si yu baax yi nga xam ko fii ko na si yàlla def barke am na kilifa boo xam ne alfa sodata suma akoto suma kilifa na fi loo xam ne lu jaadu ay kuma foja min beteyata suñ président na président nañ leen koo ñaan alin ka duwa ñoo ñaan aka duwañe gis nga soo nit baax na yaa ko moo betiya te nekkut benn euh, fen kenn fen fi fen ado aman ke kuti mi yaa a xam naka la ma ana bi mal yaa jël ma ne ko docteur Samba wala dañ ko a dañ tey rek gisuloo démba ah, ba tey eh, sa comparison bi daf dee des. wante am na fi loo xam ne wax na ko loo am lu am solo. <laughs> mooy. mooy. akoye kuma kilim faja wolemo. mooy wolemo. e eh, ñu ñaan président Presiden mu ñoo ñaanal président Dani ak duwañe yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko kila sallallahu alayhi wasallam la kumole wot suñ ko ñaa soo ko ñaana suñ ko soo ko ñaanal ako ni duwataay mu ne su la nit ñaanale ako ni mo duwate kooku tamit na la ñaanal wo fana se muru ngay duwa muru ba su la ñaanale ako ni mo kendo duwate alhamdulillah rabbil alamin bon président Jammeh woto président Jammeh ñu ñaanal ase duwañe tey nag suma wax ji dafa gaatal lool kumo sudiyata ba fima ko teje rek ba sorona dami fima ko teje rek ba sorona dami moy alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil Presiden ya jami président jami wax lu bari yow kuma jama ko man yérem nde ke man ko kam bala fam ka ndem mu ministre bi xam façon ni ñi ma jox nga lon le mo si fam ñu janax lañ dool mu ñino le am na ño xamne bo fin lañ nit lañ dool mu mo le ah ka ah, may sen kilifa bari ya tele mi la ko ay bel bambu tax na jow saxatu ma yo sa ko xamne eh, yaay président ita mi mu président sa jamano bi tay jamano bi bu nga mo bebe wala jela ah, Lesbianisme. you know ak eh, eh, benen bi ya, ani mo ka yéesee góor la. ni wol be wante mu ngi nii di ñëw. bari a bee kana jamono bi. jamono te nga xam ne borom xam-xam dinañ la ko wax. londi tiwol baa fole. we are getting to the to the end of the world. bitum dunia labandu lan ka kata wol to. ah pour ka wo mara. the most difficult the most difficult uh, thing to manage. tunkun kolongo to saa yi. is human being. wolem di wol. loolu tax na maa ngi laa ñaan. wala te mbee daani. man xam naa ne am nga yërmaan. ngaa lon koy bala faasu. xam naa ne am nga yërmaan. ngaa lon koy bala faasu. li ngay gis yëpp. ye min bee gis. li ngay muñ li ngay dégg yëpp. i ka min bee mooy. su fekkee ne da nga bëggoon a toppal loolu yëpp. li laftaa bee normal. ni kon ñu bari duñ duñ nekk si place. bee noonu bii moo te wante xam naa ne yéen ay dangaa sëy rek nga nga muñ nga ne waaw yàlla mo eh, eh, doomi adam moom ko hadama dingo be muñ boobu bi la yàlla may ngan ya seno muña a lafa dangaa dem si kanam ñaata dong be faw fo faw yokka ko alla fa am ñoo xam ne ñu ngi detention loolu be ma bari am na ñoo xam ne ñu ngi dem ak ñoo police loolu bita police am na ñu ngi dem feneen loolu bita la ko soo leen ko defalee loolu ni dem si internet bi wante yàlla mi nga xam ne mooy ala fo mi mu yàlla dina la fay ala le be joor te dangaa dem rek adu do taala ñaata dara moo te tous noo leen ni ma nekkee xale waxuma yëpp wante xam naa fexe yi nga xam ne am na ñoo xam ne defal nañ ko bi daañu lay bari bari 99 fero do defal sa gannaaw bari ah, bébé be koma defal sa gannaaw bébé koma parce que yàlla nga jëf yàlla la tawhid adu yàlla dina nekk ay adu ala be tawhid xol yërmande boobu la bala fa mi gëna am tey ay lafa ay lafa bi sumina suma baax na man nga ñaan ngana na fa wura mi sa kay na fa wura du nga xam ne ñu ngi dem ak ñëw mi nu kata kana bébé be kiti ñu ne do leen balal ya mere ko ya fa president balal leen si ko ngir yàlla ala kan ya yàlla dina la fay الله بيجولا لي. خمناني you fi fii am na naka safara am na ala ko jahannama soto soo defee lu bon ala ko ni ko koro na hadis xam ne yaaga na hadis do fana ala ko yonent bi def ko ñaan ala kila ya daan ko ya ñana nekk si ajan ay ah, defin eh, si safara le be jahannama e kay bi benn loxom bi ala ya bulu ko rek you know la ñu def ajan aya bi do itada arjan ñooñu mu fekk ñooñu ñu yàlla ah, dara lu baax ala mi ngi warta xam naa ne doo yàlla ngalon ko imanke ala imanke hukila bari ye bala Fas. su demala ñaan nga daan ye yaw ye yam fay ngeen bala assalamu alaykum honorable akibayo haraka wax ji daw yaram kumo bala fa warta daw yaram bala fa warta te ki ñu borom yermande la adum ya fo mi ye ñaatali min bala fa molem wax nga be simi sa mbaxana idiyamuta foye na fo wuran loolu nag lu rëy la ci kilifa woo doomu ku baala ci alfaya waaye nag ki nga waxal bare ka kuma miye ah, xam nañ xam nañ ah, yërmaande yërmaande mool yàlla bala faa fanan lon ne de ñun yàgg nañu ak moom dool naa meetale gis nañ li moo def ngaa jële ak a minke eh, ñu ngi laa gërëm ak i mbaayo mbee tentu la honorable ministre ak i ci ñaan gi nga def ye daani romin keten yaa ngi dëgëral li imam Touré def ya imam Touré la kumoo bambandi fi mu nekk ah eh, suñu minister for presidential affairs na honorable minister for presidential affairs ak secretary general anin secretary general ah, bokku doon ci liste de ah, dañ ko ci dugal baal ma de aksi ah, eh, baal ma alhamdulillah rabil alamin mu ne alhamdulilahi rabil alamin ansu billahi min asheytan rajim bisimilahi rahmani rahim ausu billahi min asheytan rajim eh, man suma wax ji du gudda a ah, minista ko ala kumote jam fala nda suma naatoanga yëpp li ñu waroon a wax fii wax nañ ko kaatu addo ko ñool minista lo minu folodiyamo tay kumo banne waaye dama nar a rek ku si nekk si sa li nga wax ma mm-hmm. force lu ndaw boole ko ci wax ji bara lafta doron momo ye kumol minu fa jangat a kon saafo alhamdulilahi rabil alamin sant yu mel ni bés bii min mbokk bii ñu daje fii e mbenta jang ay kilifa ulama yëpp ne fii alfaalu nin lonnaal beebe siirin jang Eh, koo xam ne ngir nga si dëkk bi fii am nga ko la fi toogal moo moo yaalon ko imu siyolete moo soto min siita min siitee jang kon dafa mel ni li bii tuuti yëpp wota mulunta ñindulaa doyata ñawo ñaa Gambie yëpp a ngi fii Gambie mu mbee bele be jang ñu janoo ak suñ président e, naata ka ñaatili na président wala pour feddali kóllare gu fi yàgga e, pour ka e, bu ñaa kuta kuta a min yaalon ko horom wala min meetam fee ndax ni ko alaaji Mansour waxee kolori bo doron sa colonial days la ako ñimmu tariki balete min dasita birin tubabu la jamano la ñuy fekk si fii buur yi kër buur e kana tubabu man sol tara jang booba fii kër buur lañ ko daan wax bo waato e fo jayne ko surwa